alaikum. Bismillahir Rahmanir rahim auzu billahi minashaitan rajim maa ngi leen euh, man le soxna mam présidente des femmes du mouvement de l'alliance des bâtisseurs à Kies, toogal fi sunu président Maleye sec euh, Manglin ngi leen di nuyu Yen ñëpp yéen ñi toog ci bi yep. sen euh, président Maleye sec ci acte bu rafet bu noble bi nga xamante ni moom la def jëmale ko ci doomu waa Thiès parce que président Malaye Seck day nit koo xamante ni dafa bëgg dëkkam bëgg goxam fonk goxam bëgg doomu gox bi nga xamante ni macha allahu rabbi ñi ngi yëngu ci lu baax di def lu baax rawatina les étudiants rawatina élèves yi nga xamante ni année bi macha allah ñoom ñëpp am nañ seen bac ba tax na bi mu gisee caisse en marche lancé benn appel tout Thiessois de bonne volonté pour ñu mën a dimbali xale yi offrir leen matériel informatique pour seen inscription ci campus seen bi yomb ah président Malaye Seck nag dafa jóg bay ci waaram li mu ci baye waaram mooy offrir leen ay modem teg ci connexion bu am solo boole ci enveloppe bu consistante macha allah jàppale ko xale yi pour ñu mën a def seeni inscription mën a jàng parce que nag moom jàng daf ko ñor la preuve en est que daf ciy yëngu euh, li may wax waa Médina Fall mën nan maa seede les jeunes cultivés de Médina Fall bi nga xamante ni fa cosaanoo ñoom ñëpp à chaque fois bu ñu soxlaa président Malay sekk day ñëw teew ci ñoom ba tax na année scolaire bi yépp daf leen di fayal ay cours particulier pour élèves yi nga xamante ni ñu ngi nekk Médina Fall ndax bu ñu waxee réew danoo wax xam-xam te xam-xam kan moo koy indi mooy ki jàng te ku jàngul noo mën a représenter sa réew jàng am xam-xam moo tax moom tey jii mu mën a taxaw tàllal loxoom ni dama bëgg Thiès bëgg mairie Thiès bëgg dimbali waa kon nag wan na na la bonne voie aux enfants que ni leen jàng seul le travail paye te politique danni ku bax moo koy def amna sunu ben benn bo xamanteni ni mi ngi ci dëkk bi dañuy jog len ngeen politique ndax boo politique politiqueul yeen ñi am xam-xam ñu amul xam-xam dinañ ñew diriger len te bu boobaa du neex te bu anarchie totale moy am ci dëkk bi te limu waxon tay ji lu ci bari ñi ngi koy gis ba tax na ah suñu président ma lay sekk borom loxoy yi set wecc yi sans tâche baax lool bëgg goxam bëgg dëkkam macha allah nekk ca Angleterre di fa bay waaram nekk fa directeur général entreprise am taxaw ni waa Thiès kaay leen ñu ànd tabax un Thiès meilleur kooku tey jii moom lañ fi représenté war a joxe remise de matériel informatique euh, waa Thiès en marche mi nga xamante ni ñoom it Thiès ñoo leen ñor Thiès moo leen tax a jóg ndax danoo nekk doomu Thiès xam ni Thiès wax deug yalla bari na ay compétence ndax fi ku fi bax rek Thiès nga bok waaw Thiès ministre yu fi lañu fekk ko président de la république bi ñëk a nekk Sénégal sax man nañ c'est un Thiès wa dom Thiès la kon nak kon waa Thiès gàcce yeen tamit Idriss yow mi nga xamanteni yow ya initié kies en marche ñi ngi lay sante di la gëreum di la wax sa taxaway rafet te képp kuy wa war na tamit def li nga def wala bu ko defulit ñew japp ci bu baaxa baax di leen gërëm yeen mbolo mi di leen sant di leen wax jere ngeen jëf di wax euh, vive le président malay sek de l'alliance des bâtisseurs ñing sa gannaaw and ak yow rek tabax ci carton sunu borom di leen sant di leen gërëm di ñaanal jamm rawati na rawatina waa assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu ku nekk sa tour ak sa sante di euh, jital ci nuyo bi tay suñu présidente bi nga xam ne moom lañ fi fekk di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu jël ko séddale ko ñëpp tey mun nañ ne contentement bu mag la ñu am ci euh, dimbal bi nga xamante ne jóge na ci président Malay Seck jëme ko si Thiès yi parce que su ma nee Thiès en marche rek damay juum ñun suñu activité yëpp Thiès moo tax ñu koy def ba ñu lancé euh, euh, journée bi ne dañoo bëgg a xale yu nga xamante ne Euh, ñoo ngi doog a am bac ren euh, ci plateforme Campusen bi nga xam ne c'est un peu compliqué surtout ren nga xamante ne dafa am ay euh, paramètres ñu xaw a changé tuuti bañ ko waxee moom moo dafa tëb rek dafa gis affiche bi rek woo ma ne ma su ma sañoon kenn du ci def dara lépp man maa koy man maa koy def mu nekk affaire boo xamante ne dañ koy rafetlu nekk loo xamante ne dafa rëy si ñun parce que ñun comme ni ma koy faralee di wax rek ñun ku xamul sax day foog ne dafa am ñu nekk ci ñu ginnaaw di ñu financé wala di def dara ñun nii la ñuy doxee ay jeunes ñoo nekk ci bureau bi activité bu nekk de de on se cotise chaque mois ak t ñuy jaay looloo ñuy permettre ñuy financer suñu ay activité moo tax suñu sumbee lu toll nii président Maleye jël dooleem def ci teg ci tamit di nekkul c'est la première fois muy muy muy def lii nii mosoon nañu dimbali benn c'était destiné à acheter des des des poubelles donc le programme la mais après dañ ko suspendre woon euh, peut-être euh, gisagoo leen poubelles ici ici ici à Thiès mais juste pour vous dire que loxoom Yagna naa dugg ci Thiès en marche mais aussi ay conseils am ak ay orientation diko ñaanal yalla lu bëgg defal ko ko lumuragal mu ragal yàlla dàkkal ko diwo woo aussi Thiessois yëpp ci suñu activité bi ñuy def nga xamné c'est pour aider les les les les Thiès les les Thiessois ngeen xam plateforme Thiès en marche plateforme nekkul Idrissa idriss moko créé moko non non c'est pour tous les Thiessois bañ nak ko bañ défé ay feuille de route dañu ne feuille de route yi duñ ko fermer donc juste lool man daal lool la amoon luma ci wax di rafetlu bu baax accueil bi aussi présidente di waaw nañu baax ci accueil bi kontaan nañu bu baax tamit ci téral bu ngeen ñu téral di ñaanal encore président Malay di ko jaajëfal bu baax a baax a baax. initiative président bi li ko motiver moom mooy dafa xam ni euh, étudiant nekk étudiant du lu yom parce que c'est da ngay commencé vie bu bees ñun ñëpp la plupart d'entre nous jaar nañu ci euh, université. et début bi c'est toujours difficile donc bu fekkee da nga gis koo xamante ni mën na la accompagner pour les premiers pas ci pas yu yi lolu vraiment ça c'est salutaire quoi dañ ko war a dañ ko c'est une initiative bu rafet la bo xamanteni euh, peut-être que mesure ñun fim mu nekk nii du ñu mesurer portée bi mais les étudiants yi xamanteni en général dañuy tout tout le temps dañuy ak ay problèmes ah euh, dinañu xam portée bi parce que c'est li moom mooy première aide bu ñu leen apporter pour ñu mëna a aborder cette nouvelle vie dont j'ai parlé tout à l'heure quoi donc voilà le président ma euh, dans son fort intérieur mu xam ko xamni xalé nañu avec euh, euh, l'initiative parce que ñi ñom la quoi en marche quoi nous initiative ñun dañuy def rek nous avec nos modestes moyens pour que Euh, seen initiative bi mën a egg à bon terme quoi loolu la woon